sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke mi ngi ganee àdduna bisub talaata juróomi fan ci weeru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi mu tombeeg bisub mardi 26 juin 1917 ci dëkk boobu du njaaréem la sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim feeña jamono di doomu soxna mareema jaxate ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim moom sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim am na nag ku mbokkal xaddim rasuul ak kii di soxna mareema jaxate muy magam sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke ibnu soxna mariama jaxate ibnu sëriñ tuuba seexul xadim ak moom sëriñ sohaybu mbàkke ibnu soxna mariama jaxate ibnu sëriñ tuuba seexul xadim sëriñ bu mbàkke kenn rek la bokkal waajur wu jigéen muy sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke bi matee am aw tur nag sëriñ tuuba xaadim rasul mi waajuram sëriñ muhammadu jóob dagana la yónni woon ngir mu wutal ko aw tur xamul itim kii di waajuram wu jigéen di soxna mariama jaxate bi mu feeñee jamono ba am atab tuuti la Mariama Jaxate génn àdduna sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi waajuram wax ne nañ ko it kii di soxna Xari Mbaar Sill mi nekkoon waajuru sëriñ Abdou Samat Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim doon sàkku ci soxna Xari Mbaar Sill mu boole sëriñ Soye bu Mbàkke ak doomam jooju di Seex Abdou Samat Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul boole yor soxna Mariama Jaxate moom sax bisub keroog bi mu génnee àdduna sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi ngi doon sàkku ci mag ñi ñu denc ko ci wetu soxna Aminata Loo ci guy texe keroog mi ngi doon xamal mag ñi di leen wax ne Maryaama Jaxate mii de mook Aminata Lo mii ñooyam wàccuwaay bi matee dal alxuraanul karim waajuram xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bu mu ko dalalee alxuraanul karim la wooluwaat nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate ngir mu jàngal ko alxuraanul karim bisub kero sax ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim mi ngi wax sëriñ Amsatu Jaxate joxuma la soin bu mii ngir nag lu olof njaay baaxoo di def nit ki su amee doom ñu jébbal ko nijaayam dama la ko jox ngir li ma def ci yow nga def ko ci soin bu mii sëriñ Amsatu amsatu jaxate moo jàngal alxuraan nag kii di sëriñ soin bu mbàkke ci tuubaa ci daaray sëriñ amsatu jaxate boobu ku ñuy wax sëriñ alsaan jaxate ma nga fa woon di jàngale sëriñ alsaan jaxate moomu nag lañ jébbaloon sëriñ soin bu mbàkke kon ci loxoy sëriñ alsaan jaxate la nekk ba bind nag lii di kaamil bi bi muy bind kaamil fekk fi waajuram fekk na waajuram nag génn nag lii di àdduna ci atum 1927 kaamilam boobu nag cheikh mamadul moustapha mbàkke lañ ko jébbal ci tundóo di bisub keroog sax bi sëriñ amsatu jébbal kaamilu sëriñ soin bu mbàkke kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke ma ngi koy xamal ne kaamilub sëriñ touba cheikh abdoulahad mbàkke mi ngi nii kaamilub sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke mi ngi nii kaamilub sëriñ soin bu mbàkke mi ngi nii lii nag la ma seen waajur wa santoon ci ñoom doon na ma xamal ne li nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom gisatuma seen waajur wa nag di xaadim rasul yow mii nag yaa fi nekk seen waajur moo tax ma bëgg a fob seen kaamil yi jébbal la ko ginnaaw bu cheikh mamadou moustapha Touba Cheikh Saliou Mbacke ak Serigne Soye bu Mbacke Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nak mi nekkoon seen mag ba ne leen nag ci daaray tundoo di jooju abu diir ñu wéy nag nekk nag ci loxoy Serigne Ahmadou Muxtaar Jeng Guyaar boobu itam ma ngay jàngale alxuraanul karim ci daaray jooju di tundoo di ginnaaw Serigne Ahmadou Muxtaar Jeng ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke jëlaat na leen nag jébbal leen Serigne Habibu Mbacke imaam ci loxoy Serigne Habibu Mbacke imaam nag lañ mujje jànge nag lii di xam-xam ñu delsiwaat ma cheikh mamadul moustapha mbàkke ba ci atum 1941 ci 1941 nag la dem nag ci dëkk bu ñuy wax mbaam jigaan ci wetu mbaam jigaan googu nag am na dëkk bu ñuy wax lumbel sayer ma nga fa foofu nag la sëriñ soin bu mbàkke ibnu xaadim rasul nekkoon di liggéey ba ci atum mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax kàbbu gay ku ñuy wax sëriñ móori gay moo ko fa dogaloon ay tool mennum at rek la fa sëriñ soin bu mbàkke bay ci atum 1945 dëkk bu ñuy wax bukki barga kii di sëriñ amoon na fa ay tool ci atum 1949 amaatoon na ay tool itam ci dëkk bu ñuy wax Mbaraama Diop Mbaraama Diop bii sax ci atum 1954 la bàyyi tool yooyu ci at moom itam la ko jox ku ñuy wax Serigne Mor May ngir itam mu féete fa ci atum 1975 am na dëkk bu ñu doon wax Touba Mouride itam kii di Serigne Soin bu Mbàkke amoon na fa ay tool itam di fa bay ci atum 1971 nag la gor ab quartier ci Touba ñu koy wooyee Touba Ñanka Touba Ñanka nag moo tolloog nag fii foraasu Aynu Rahmati bi ne nekk muy forage bi def ndox mu neex mi foofa bi ko sëriñ Souhaïbou Mbacké di gor ci atum 1971 ñànka lañ ko doon wax waaye sëriñ Souhaïbou Mbacké moo ko tudde Madiyana roy nag turandoom wa ci dëkk boobu mu nekkoon féete woon fa ñu ko daa wooye abo borom Madiyana wala abo Madiyana foofu itam bi mu ko goree ci atum 1971 daaray alxuraan la fa defoon di fa jàng ak di jàngale sëriñ Souhaïbou Mbacké nag sañtul ab dëkk waaye bari na nag ay dëkk nag yu mu jaar kër mu nekkoon ci Touba ba génn fi àdduna te denc ko sax ci péncum boppam moomu di kër gi ñuy wax kër Serigne bu Mbacké waaye kër googu di kër Serigne bu Mbacké di péncum Serigne bu Mbacké ma wax leen nag li ci jotale Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Xaadim Rasuul ci atum 1945 bi seen mag ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké nag génnee nag lii di àdduna boobu Serigne bu Mbacké mi ngi foofu nag ci mbaam jigaan ci tool yooyu mu amoon denc nañ Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ginnaaw bu mu génnee àdduna ba mu am ñaari fan wala ñetti fan doon wër sëriñ soin bu mbàkke doog a xam ne mi ngi ci tool yooyu di mbaam jigaan ginnaaw bi nag lañ ko yëgal ne sa mag ji cheikh mamadul moustapha mbàkke génn na àdduna fan yi weesu ci la nag sëriñ soin bu mbàkke bàyyikoo nag ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan ñëwaat nag ci tuubaa ginnaaw bu mu ñëwee tuubaa nag ci la dogu ne su génnatul tuubaa ba lu mel nii nag di xew ginnaawam te yëgul tinul duutul am ci booba itam ci la ñëwee nag toog nag ci kër googu nag kër sëriñ bu mbàkke ci pénc moomu daat fay taxawal nag luñ tudde daaray alxuraan daaray nekkoon nag di liggéeyaatale xaadim rasul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1991 li ko dale ci atum 1946 ba ni mu génnee àdduna ci atum 1991 sëriñ soye bu mbàkke génnul tuuba ngir xew-xew boobu amoon ginnaawam di magam bu génn àdduna te yëgu ko wala bu génnee tuuba itam fu mu dem itam du fa fanaan guddi guddi ilaa tuuba ñu man koo xayma ci diir bi mu toog génnul tuuba wala su génnee tuubaa itam fu mu dem du fa fanaan ci diirum ñeen fukki at ak juróom benn ci diirum ñeen fukki at ak juróom benn yooyu nag la toog Touba taxawal nag daaray alxuraan di fa jàng ak di jàngale ba tax na nag yoonu murid itam bari na lool ay kàngam yu ñuy coow ci kër googu lañ génne muy péncum sëriñ soye bu mbàkke wala ci loxo yi sëriñ soye bu mbàkke daara jooju mu taxawaloo nag di daaray alxuraan ja ñii nag la fa njëkk jàngal alxuraanul karim ci péncum boppam moom sëriñ seex say mbàkke di doomam sëriñ aboo mbàkke di doomu sëriñ Touba Cheikh Abdoul maam ak sëriñ soin bu faal di doomu sëriñ Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñeent ñooñu nag la fa njëkk jàngal ginnaaw bi nag la mag ñi nag wéy nag di ko jox seenu njabootu daara ja itam nag wéy di màgg ba tax na itam nag lii di yoonu murit niiw na lool ci kilifa yi kuñ ne la jaarul ci pencum sëriñ soin bu mbàkke kàngam yooyu ak doomu soxna yooyu jaar nag ci daaray sëriñ soin bu mbàkke ñu man cee ràññee sëriñ fàllu mbàkke imaam ibnu cheikh abdou xaadir mbàkke Masaalikul Jinaan ci Ndakaaru Sëriñ Fàllu Mbàkke moom itam moom lañ dénk julli korite ak tëbaski ci dëkk bu sell bii di Tuubaa Sëriñ Jiili Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul Sëriñ Jiili Mbàkke moom moom lañ jox université bu Tuubaa Sëriñ Muudu Abib Mbàkke bu Sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi Sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke mi yor kàddu xalifa général des mu itam jaar na fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñu jaar ci loxoy Sëriñ Soye takku na lool ba taxoon na nag kii di sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke nag goraatoon jeneen daara ci atu 1971 mu nekk ci ginnaaw daara jooju di ñànka muy fi tolloog université Cheikh Abdoul Ahad bi tolloog nag fi forage ndox mu neex mi nekk di ay nu raxmati dëkkoo ñànka daara jooju itam bari na ñenn ci donga yi itam foofu la ñu jaar bàyyi sëriñ Géey la joxoon daara jooju muy daaray ñànka mu nekk fa itam di jàng ak di jàngale goraatoon na jeneen daara itam ju ñuy wax daaray Baye Omar Sey donga yi gënoon a ës nag ci daara ji foofu nag lañ leen daa yóbbu itam ngir nag ñu gën a mën mokkal nag li di alxuraanul karim tax na moom sëriñ Souhaïbou ay téere yoo xam ni jullit yi ak murid yi itam dañ ciy bu baax a baax a baax ci jàng ak jàngale la doon yëngutu taxoon na mu bind ay téere yoo xam ne ni itam ku soxlaa jàng soo ko gisee daa mën a xam nag sa diine ci biir téere yooyu mu taalif nag ñu man cee ràññee téere bu ñuy wax xuratul ni am na beneen téere xam-xam bu mu bindaan moom sëriñ Souhaïbou Mbacké ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu koy wax buqyatul muridiin ci kàllaay may ay arab nag la ko bind sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim nag taalifaatoon na beneen téere boobu nag ñu ngi koy wax fusoolul taqawuuf ak yeneen ak yeneen yu téere yu sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim taalif lépp rek ngir jagleel ko julli di yarkat la woon jàngalekat la woon jàngalekat googu mu nekkoon ak yarkat googu mu nekkoon taxoon na itam képp koo xam ne ni nekkal nga fi ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ab xalifaam sëriñ soye bu mbàkke itam defoon na la ab sëriñ di la roy def la itam mag ginnaaw magam ja cheikh mamadul mustapha mbàkke noonu itam ni la toppe woon cheikh mamadul faadal mbàkke def ko mag def ko sëriñ ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke moom sax bi mu génnee àdduna ci atum sëriñ soye bu mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke itam noonu la toppe woon magam ja ndax ñoo bokk soxna mariama jaxate muy sëriñ touba cheikh abdoulahad mbàkke nangul ko itam di ko liggéeyal magam jooju di sëriñ touba cheikh abdoulahad ku ñuy wax sëriñ Mohammed Haza Sy nekkoon imaam itam ci Touba Belal ngir ñu taxawu magam jooju di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke ñoom ñaar moom benn lañ woon ba tax na itam lu takku ci njabootu Cheikh Abdou Khadir Mbacke sëriñ Soye bu Mbacke moo leen jàngal moom Cheikh Abdou Khadir moom moomu ibnu sëriñ Touba Cheikhul Khadim sëriñ Soye bu Mbacke ibnu Khadim Rasoul itam moo ko taxawu ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke mu fob léppam nag jébbal sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ci xilaaf ak Saaliwu Mbàkke sax la génnee àdduna ginnaaw bu ñu àndee atum yàlla ba tax na itam lu takku ci njabootu Sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke moom ñoom ñoo bokk fu ñu dëkk yeneen doomu baayam yi mu bokkal Xaadim Rasuul ñooñu itam kasaalika ndax Sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ibnu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ñu takku itam ci njabootu boroom dër bi Sëriñ Suhaybu Mbàkke moo leen jàngal moo leen yar Cheikh Abdou Samad Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul ñoom ñaar moom ñoo defandoo lépp ginnaaw bu soxna Mariama Jaxate génnee àdduna la Sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim sàkk woon ci soxna xari mbaar sill mu boole sëriñ soin bu mbàkke ak cheikh abdou samad mbàkke mosam yor cheikh murtada mbàkke ibnu xadim rasul moom itam kasaalika benn lañ woon ay xarit lañ woon ba tax na bi sëriñ soin bu mbàkke ibnu sëriñ touba seexul xadim génnee àdduna ci atu 1991 cheikh murtada mbàkke ibnu xadim rasul moo ko taxawu moo ko jullee noonu mu ko defee woon ci ay doomi baayam yu góor itam la ko amale woon ci ay doomi baayam yu jigéen mbooleem bintu xaadim rasul yi ñu ci takkoo takku sëriñ soin bu mbàkke tudde na leen doom boroom sëriñ Suhaybu Mbàkke foofu mu nekkoon nag di péncam mi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo ko sanc tudde woon ko Daaru Raxmaan bërëb boobu itam Seexul Xaddim daana fa nekk lu takkoo takku ñaari doomam yii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul ak ma Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul foofu lañu dalee alxuraanul karim pàkk boobu bokk na ci pàkk yi nga xam ne ni doomu aadama yi saa su ne dañ faa war dem di ko ziyaar sëriñ Suhaybu Mbàkke pàkk boobu ñu baree bari fekk nañ ko fa ci wàllu ay kilifa ñu man cee maam abdul aziz si malik dabaax xalifa tiwaawoon sëriñ abbas sàll bu lugaloo itam bi mu ñëwee tuubaa dem na itam ci pénc moomu ziyaare ko buñ doon lim kilifa ya fa jaar ñëw ziyaare si ko daa juum waaye ci gàttal rek ñett ñooñu ku leen tudd xam ne duñu ñu tuut ci diine ji duñu itam ñu tuut ci réew mi ba tey sëriñ soye bu mbàkke ku fonkoon alxuraanul karim la ba tax na daana ko jàng daana ko jàngale fonk googu mu fonkoon alxuraan ba tax mu daa jàng ko jàngale ma wax leen nag lan moo ko waraloon dafa amoon bis bi mu nekkee ci daara ni yaayam jooju di sëriñ Hamsatu Jaxate ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim woolu woon sëriñ Hamsatu Jaxate ba mu ñëw mu di ko wax ne soo demee nga indil ma sohin bu te ànd ak moom ginnaaw bu sëriñ Hamsatu Jaxate ñëwaatee ci dëkk bu sell bii di Touba jël si sëriñ sohin bu Mbàkke ngir yóbbuwaat ko njaareem ci loxoy waajuram Xaadim Rasuul njaareem googu ginnaaw bu fa sëriñ sohin bu Mbàkke ñëwee nag àndoon ak nijaayam sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Tubaa Seexul Xaddim na ko genn gaal goo xam ne ni bu ci alxuraanul karim nekkul itam ay xasida ma nga ca ngir sëriñ sohin bu ñoom ñett nag ñu ànd kees gu ñu ubbi jàll ca ga ca des sëriñ soye bu mbàkke rek ibnu xaadim rasul yanu gaal ga ba ñu egg nag ci genn kees sëriñ tuubaa seexul xaadim nag wax nag kii di sëriñ soye bu mbàkke nag mu yénneeku gaal googu nag mu yan woon ginnaaw bu mu ko yénneekoo nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaadim laajoon na sëriñ soye bu mbàkke xam nga lan moo taxoon ma yanoon la nag lii di gaal gi sëriñ soye bu mbàkke nag tontuwul woon ca jataay ba waaye nijaayam sëriñ xamsatu jaxate moo ne ko mbàkke bàll soo ko ko xamalee da dana baax ku seexul xadim di wax sëriñ soin bu mbàkke di ko wax ne dama bëgg nga fonk alxuraanul karim dama bëgg nga fonk alxuraanul karim ba muy ñetti yoon ca la ko waxee itam ca jataay ba na ko soin bu heure boo toogee te itam del jublu penk loolu itam taxoon na ñi nga xam ne nii miinoon nañ bu baax a baax a baax toogaayub sëriñ soin bu mbàkke ibnu xadim rasuul fekk ko mu toog te jubluwul penku niw na lool ba tey seexul xadim di ko wéy nag di yokk ca jataay ba di ko wax ne soin bu bala ngaa defati dara del tey ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi doon wax doomam jooju di sëriñ soye bu mbàkke sa kawar ga itam bu ko bàyyee te mu sëq loolu itam taxoon na kii di sëriñ soye bu mbàkke fukki fan ak juróom yu ne daana watu te jataay boobu nag ba ñuy tàggutoo la ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon àlliway xànjar jooju nag ku seexul xaddim masaa dalal alxuraanul karim ci la la dalal alxuraanul karim àlliwa jooju nag ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasul la mujj te jataay booba itam moo waraloon moo tax sëriñ soye bu mbàkke karim ba tax na yëmaliwu ko woon ak dara ginnaaw bu magam jadi waajuroom wa génnee àdduna di seex mamudul mustapha mbàkke ibnu xaadim rasuul ci 1946 nag sëriñ soye bu mbàkke taxawal daaray alxuraan ngir yeesal nag ndigal la ko waajuroom wa waxoon di xaadim rasuul ndigal loolu mu doon yeesal di ndigalul waajuroom xaadim rasuul ci fonk alxuraanul karim tax na itam nag yoonu murit itam bari na ñoo xam ne itam jariñu nañ ci ndigalul xaadim rasuul loolu mu joxoon doomam jooju di sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu la ci la feeñ jamono muy juróomi fan yi weeru koor ga ci la génn àdduna itam muy fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weeru koor gi kon moom ci weeru koor la feeñ jamono ci weeru koor la génn àdduna weeru koor googu nag sëriñ Sohibou bu Mbàkke ku ko fonkoon la ba tax na itam Tuubaa ñi ko miin bu baax a baax a baax saa bu dog jotee danañ dégg sonné rek sëriñ Sohibou bu Mbàkke ga sone di wax ne dog jot na ci Tuubaa ak li ko wër sonnerie googu nag sëriñ Sohibou bu Mbàkke moo ko fi defoon a xam seen rajo yombul waaye sonore gi nag daana xett li doomu aadama yi ba tax na itam ñu baree baree bare ci Touba ba nëga sax ci la ñuy sukkandiku ndax sonore ga moo leen di wax ne dog jot na sonore googu nag laataa mu fiy nekk ci péncum sëriñ soen bu mbàkkee mën nañu wax ne dañ daa def ay pexe rek wala di tëggantu ay weñ ngir wax jullit yi ne dog jot na mu am bis nag sëriñ soen bu mbàkke woolu ko ñuy wax mbay jenn dip ab électricien ñu bari miin nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba wutal ko nag loo xam ne nii daal heure bu sonee danañ xam ne dog moom waa Touba danañ yëg ne jot na bàyyi daa mbooj moomu nag mooy waajur suñu nattangoo Aminata ca Njuga Kebe nag moo jëndaatoon geneen sonnerie gi fi nekk sonnerie googu sax moom moo fiy dox ba nëgëni kon sonnerie gii nekk ci péncum suñuy bu di sonee ne dog jot na ginnaaw gu njëkk ga bàyyi daa mbooj moo ko jënd waaye gii fi nekk nag jamono jii nag Njuga Kebe di milliardaire Xaadim Rasuul moo ko jënd sëriñ soné bu Mbàkke nag am na ay turandoo yu takkoo takkoo ci yoonu murid wi ndax ñi bokkal bare bare bari itam tudde nañ ko doom cheikh yi toppoon xaadim rasul itam ñu ci bari tudde nañ ko doom ba tax na ay turandoom itam am na ay tur yu ñu leen di wooye wuute am na ay turandoom yu wooye soin bu am na ay turandoom yu ñuy wooye aboo waaye nag li ëpp ci ay turandoom aboo lañ leen di woowe moom sëriñ soin bu mbàkke sëriñ soin bu mbàkke itam ba tey bari na itam luñ ko tudde ci miléem réew am na ay cheikh yu nekk foofu ci kër sëriñ soin bu mbàkke ñu man cee ràññee sëriñ abdou wahab diop ibnu sëriñ masamba diop sam ak ku ñuy wax sëriñ bu jenn ibnu sëriñ Baara Jenn ibnu Cheikh Issa Jenn sëriñ Laay Juuf ibnu sëriñ Ceexna Juuf Lambaay ibnu sëriñ Aline Juuf Lambaay sëriñ May Amar ibnu sëriñ ibnu Amar sëriñ Soye bu Faal ibnu sëriñ Moustapha Faal nu Cheikh Ibrahima Faal Lamp Baabul Muridiina ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneeni cheikh yoo xam ne nii ci kër googu lañu sukk jébbul ca kër googu lañu yaakaar ñu takkoo takku itam bind nañ jëmale ci moom soo demee ci téere bii di xarnu bi cheikh Moussa Ka fi muy tudde lenn ci doomu Cheikhul Xadim itam ma ngi fay tudd turam soo demee itam ci téere bii ginnaaw sàkkooru jéeri ji mbooleem fu Cheikh Moussa Ka di tudde njabootu xaadim rasul gi itam ma nga ko fay tudd taalibeem bii nag di aboo gi way na ko itam ay way yu takkoo takkoo takku moom doomu seexul xaddim bii di sëriñ soen bu mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal ci darajay waajuram woowu ko yar di soxna xari mbaar sil soxna xari mbaar sil moomu nag moo yar sëriñ soen bu mbàkke ginnaaw bu waajuram wa soxna mariama jaxate génnee àdduna ci ndigalul xaadim rasul ci li ko dale ci atum 1918 ba ci atum 1988 naxari mbaar si la moom nag mi ngi génn gi mu dëppoog bisub lundi 18 avril 1988 sëriñ Sohaybu Mbàkke nag doog a xam ne mi ngi doog a ñàkk waajur ndax soxna xari mbaar sill dem na soxna xari mbaar sill moom nag sëriñ bu Mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee moo ko jébbal boroomam ci armeer yu mag yi soxna xari mbaar sill moom mu defoon waajur kii di sëriñ Sohaybu Mbàkke itam tuddee na ko doom ndax soxna xari mbaar Mbàkke mi ngi fi bintu sëriñ Sohaybu Mbàkke mbàkke cheikh abdou samad mbàkke moom mu bokkaloon soxna xari mbaar si liitim sëriñ soye bu mbàkke itim tudde na ko doom ndax cheikh abdou samad mbàkke soye bu mu ngi fi kon ku fonkoon waajuróom moom woowu la ku dëdd woon àdduna la moom sëriñ soye bu mbàkke ku maandu la woon moom sëriñ bu mbàkke ku nee woon ab dox la moom sëriñ soye bu mbàkke dëdd googu mu dëdd woon àdduna tax na itim lenn loo xam ni mbirum àdduna la amulu ko woon solo képp kum yar itim ci loolu la la tàggat ci loolu nag la sax ba Hamza ci feebar bu ko tëral doomu seexul xaddim bi ak soxna Mariama Jaxate mi ngi génn àdduna guddi ajjuma fukki fan juróom-ñeent ci weeru koor ci atum 1411 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci atum 1411 ci gàddaay gi mu dëppook vendredi 5 avril 1991 vendredi 5 avril 1991 ci kër googu mu féete woon ci Touba ci xilaaf ak magam Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacké ay atam nag tollu tolloon ci juróom ñaar fukki at ak ñeent rakkam ja cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci péncum boppam ci teewaayu nag murit yu takkoo takkoo takku ci yoon wi ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ ahmadu mbàkke mim faye waajuróom wa xaadim rasul ñu gën koo xam ci sëriñ cheikh say mbàkke moo ko wuutu ci le 5 avril 1991 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ ahmadu mbàkke yàlla na ko fi suñ boroom yàggal te gudd guddal aw fanam ak mboolem ay rakkam yu mu siqal sëriñ soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke nag am na bés buñ ko daa fàttaliku ci li ñu tuddee ak màggal ci atum 1998 la njëkk a fàttaliku kii di sëriñ soye bu mbàkke ci li ñu tuddee ak màggal màggal googu itam nag amul woon bés fixe njaboot gi dañ daa def rek heure buñ ko jekkoo ci at mi màggal ko màggal googu itam guddi ak bëccëg la daa doon waaye nag bi ñu demee ba ci atum 2005 te lañ soppi nag bés bi nekkat léegi kat ci fan ci weeru koor lañ fàttaliku bis boobu moo dëppoo woon nag feeñu jamono sëriñ soin bu mbàkke ci atum 2006 ba nag la njëkk a fàttaliku sëriñ soin bu mbàkke ci màggal ko ci juróomi fan ci weeru koor màggal gi nag ci lañ ko jëlee ci guddeeg bëccëg xool ko rek léegi ci bëccëg kon ci atum 2005 ba nëgëni ñi ngi fàttaliku sëriñ soin bu mbàkkee juróomi fan ci weeru koor mu dëppoog bis bi mu feeñoon jamono ñu di ko fàttalikoo nag ci pénc moomu ñu ko denc ci foofu la ñuy fàttalikoo sëriñ soin bu mbàkkee ñuy ñaan ci doomu xaadim rasul ba mu faye woon abo madiyana ñu ko daa wooye sëriñ soye bu mbakkee yàlla na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey